asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet seen football TV nuyu naa leen bu baax yaax leen di am mbégte saa su ne dafa leen vidéo dañuy ñëw rek wax si suñu U17 yi xamante ne euh, gis nañ défaite bu ñu am euh, contre Japon mu nekk ba ne défaite bu xamante ne bëri nañu ay leçons yu ñu si mën a tiré euh, def nañ tirage bi Sénégal moo ngi am kii di kii di France donc France la ñu am ñu war a jouer mercredi mu nekk benn match bu xamante ne nar na neex match bu xamante ne man am naa yaakaar bu baax baax donte nag. suñu meilleur joueur Amara Diouf euh, da fay forfait match boobu ñoo ngi wax ne 15 jours ñeneen ñoo naan compétition bi yëpp du ko joué mais ak lu man ci am bu len fàtte match bi xamante ñu ko joué bi passé ni contre Japon bokk na ci lu ñu yaaxal moy que dañu amone 5 jours yu xamante mënon mënoon nañ leen rouge mënon nañu euh, bu ñu amaatoon zone duñu jouer match bi ni duñu jouer match 8e de finale bi euh, Serigne Saliou Dia ak suñu coach bi décidé tek len ci banc bi il était même obligé en deuxième mi-temps dugal ci ñenn mais était obligé 5 jours tek len ci banc bi sans compter gardien bi blessé Amara Diouf ça veut dire que c'est une équipe type, 11 type, 8, Donc, si on a 5, 6, 7 joueurs, nek, 7 joueurs, donc c'est un changement. Après, euh, Amara Diouf, nous gagnons, le gardien gagnons. C'était compliqué. aussi, nous voulons forcer à tout pour gagner. Nous, man, boy, nous voulons Je pense que nous forcer carrément les Japonais pour gagner mais vous voyez, le football est erreur. Nous avons une défaite, mais je pense que le Sénégal, on regarde le Japon, l'Allemagne, l'Argentine, il le Brésil. Et le Chimane, il y a le Massimo match bu mag la woon am donc France mën nañ leen door France am nañu ay lacunes saan nañ seen i match am nañu ay lacunes c'est vrai que offensivement am nañ de très bons joueurs déjà am na sax benn Sénégalais bu fa nekk benn boy benn boy boo xamante bëgg naa def si moom découverte après ma gis gars yi convainc donc mais man wóolu naa suñu ay force wóolu naa wóolu naa jéem euh, yaaya jéem wóolu naa suñu latéral bi on a tellement de bons joueurs yu xamante ne que ça soit Nying y a tellement de bons joueurs euh, Idrissa Gueye on a tellement de joueurs suñu latéraux yi ñëpp a taxaw donc euh, bi base absenté suñu suñu défenseur bi gis ngeen daf ñu jëwriñ daf ñu manqué ci défense bi donc euh, suñu bi Serigne Saliou Dia mu def ay changement parce que bu ñu amoon cumul de carton jaune day metti trop ñun c'est vrai que absence bu Amara Diouf di franchement dina metti lool mais je pense que tactiquement parlant bu ñu respecté li Serigne Saliou Dia euh, tégal ak consigne yi am naa confiance que on peut se qualifier parce que que ça soit France ce sera un match hyper difficile mais pour man match la bu xamante kon 2002 nous ñu joué euh, ak France nous soxla suñu indépendance je pense que boy c'est à eux de décrire leur propre histoire comme ñi ko ñoom El Hadj Ousseynou Diouf bindee ak ñom Pape Bouba Diop ak Khalifa Khalifa Fadiga en 2002 ñom tamit eu nañu occasion donc euh, pour qualifier en quart de finale et je pense que peuple bi mo ngi seen guinée. je pense que euh, ay jeunes lañ ay xalé lañ mais xalé moy def erreur xalé moom ngay ci je pense que match bi passé pour man défaite buy defar la warul nekk defet bu xamante ne mentalement daf ñuy psychologiquement parlant daf ñuy eh, pour avoir xol boy seen un match man amna ci confiance même en l'absence de Amara Diouf sont donte Amara Diouf c'est le joueur plus quoi c'est le joueur plus c'est ton c'est ton Alan c'est ton Cristiano Ronaldo c'est ton Lionel Messi c'est le joueur plus bi xamante euh à lui seul comme bii bi contre Argentine à lui seul mën na def exploit individuel def quelque chose je pense qu'il y a boobu on a, sa amna cette capacité là pour def li Amara Diouf di def donc, euh, Idriss Gueye, c'est un bon attaquant, franchement, c'est un bon attaquant. Euh, et même au milieu, c'est le, joueur de Dalou Salam, boy, boy, pap, de Donc, notre coach, il faut, bien se préparer. Donc, euh, ce sera un match hyper difficile parce que France est venue pour, favori début de compétition. Pour, émission, de, confiance, c'est une jeunes. Mais quand même, erreur. Donc, nous, nous, boy, et on préfère le faire yéen a xaw ma noo leen ko xalaatee ci commentaire wax leen ma euh, affiche boobu noo leen ko gisee 22 22 euh, lay am le 22 prochain novembre donc euh, en espérant que suñu gaynde gagné mbokk yi wax leen ne maillot yi mooy disponible ba tey sur seen football TV maillot Sénégal maillot seen i seen i seen i blouson seen i loisir yu ñuy entraîné xam donc maillot club maillot sélection yëpp c'est disponible ak ay ballon original au 77 352 31 01 jaajëfal naa leen bu baax a baax nag wax leen ba beneen sur football TV.